people out of the world. Well, that's a way back. You will sure. way back. You want to talk, I talk, you will talk, I talk. You want to talk, you will talk, I talk. You talk to yourself, ñoo féete ci église bi ñoo fa nekkal yoon ci yàlla isa nee nañ koo seet soon fekk nañ seen teewaay bi moom Thank you.

lay toog aussi. wala ñu jël benn place yu mu tuddee waaw. moom lay. génn téléphone sëriñ bi mu ne maa ngi ñuy génnee ci indi ñaanal naa la ñaan bu nekk ma ne ko amin saa mu génnee indi rek ñaanal naa la bu baax ñaan bu nekk ñaanal naa la Thank you. dëgg-dëgg yi ñu am ci bés wàllu musaab yi ci booram alhamdulilah. suma mbokk yi yàlla wàcce na ma leeru Kirista doomam xel mu sellami le dana fi man tànn na ma te yónni ma ci àdduna si ngir ma wasaare yépp bu ne Yehu Krista Domam, Chemu Selamile, Danasiman, Tananama, Leyoni Machi Adonasi, Girma Wasae, Yeblebu Neba, Yalla Wachenama, Leru Krista Domam, Chemu Selamile, Danasiman, macha allah. oui vous asseoir. jërëjëf. merci. c'est sur le rythme sur le. des des bayfal. man c'est sur le rythme de chant des bayfal. mu bayfal la. voilà. sëñ bi nee na bëgg nañ bu baax. jërëjëf jërëjëf. te dañu weesu lool yoon yi moom desul wax mag kilifa la ñuy wax waaye dana am xarit sëñ bi kilifaam la waaye xaritam la si yow sëñ Fallou Moussa mi da ko jege lool te xanaa ni mu doxee ak sëñ bi léegi wan na leen moo ñëw fekkee jotaay bi ngeen ñëwee bu fekkee. lii de lii dafa mel ni dafa wane rek seen ñëw gi dëggal gi ko yàlla yi gën a dëggal ndax sëñ Abo woote na ci yu tay mooy mooy sëñ Fall mooy mooy sëñ Fall bi bu ngeen fi ñëwee mu seetteeg ndaw ak waxam kon mooy wane ni seen jotaay bi mat na sëkk tàggatoo ak gërëm wala ñoo def dara ñu wax ak sëriñ bi danañ ko def ba noppi mu ne ma xam naa ko dañuy bàyyi bu ñu dugg ci bunt bu njëkk bi tàmbali ko mottalee ko ñu garam sëriñ na moo tax ma ne ko yow kon bàyyi bu nga doxal ndax xam naa ne li koy doxalee mu xam ko te boo ko déggee way wi du lenn lu may kañ yàlla jox ko àqam ji mu yor jox ko darajaam ji mu yor te loolu ko def xam nga maa ngi wax ne am na koo xam ne li ko tax a faatu mooy daa dégg ñu ne wa yàlla darajaam rek mu tiit ba bëgg ab oto <laughs> sama sama àq day daw day ko li muy dëgër dëgër mu tiit bay daw dañ ko doon jàpp. ko dàq di ko jàpp parce que naa woon ñëpp dëgëree waaye keroog bu déggee loolu rek dafa tiit yàlla noonu la toll te yéen seen jotaay bii li ngeen fi jàng lépp wax ko fi noonu la ba pare nag mooy rythme mu Baye xam nga moo tax ci waxtaan bu njëkk bi wax naa leen ne la sëñ bi jaloo gul daanaka yi ñu dàpp la delloo kenn ku ne fexe ba convaincre sa morom rek ngeen am di tàkkante façon ku ne ñibbi na ci la newoon déedéet lii mooy dëgg sëriñ bi dafa xool li yàlla dogal ci yéen ba nangu ko te dogal yàlla ni boo njëkk sant ngir ñu nangu ko hmm. mooy Isa ni ngeen ko jàppe mu jàppe ko waxal ko ba fa amana rasul boo koy jàng ba mujj gi laa nufarriqu bayna ahadin min rusulihi duñu tàqale benn yonent ak morom ñun sañuñu ko loolu kon mooy dëgg kon du jalo mooy wax li am la dëggal li am dëggu la ci la si bii di dox ndax ba muy waxtaan ci yéen di waxtaan ci Seydina Isa ak seeni melokaan jàpputoon na jotaayu mel ni dana jàmm daa fekk li yàlla dëggal rek mu nekk di ko dëggal ngir di ko jàngale ñi nga xam ne xay na seeni xel agu ci ba yéen ngeen dégg ko ndax yéen maanaam jaxasoo lu leen neex la neex la waaye nag ñu teey leen ci jaxasoo ndax bëggu leen a yàq bëggu leen yëngal bëggu def ci barab lu ngeen war def waaw lislaam moo ko ko sant mu def ko waaye yéen itam neex ngeen koo defal ndax loolu tax na bàyyi ko xel bàyyi ko xel boole ko ci seeni programme ndax wax naa ne sax nit seen rek ne ah jiw day nga de neex na lool waaye sëñ bi kat dañuy dem barab sàngam waaye dañoo bëggoon bu ñu dëppee jaar ci waaye ko ñett fan comme ni ngeen ko waajee loolu neex na sëñ bi lool ndax xam na ne dañ ko dugalal si biir xalaat waaw loolu moom moo tax sëñ bi neex na ko lool ndax ñëw gi dafa am ak cant gu ko war seen diggante moom ndax dafa foor dafa foor li ngeen def lu foor la maanaam jëm si ci moom xam ne ku ngeen war a jëm la ndax lan mooy doxal ci diggante bi loo xam ne keneen mën na cee jàngee man cee royee looy Sayyidatuna Mariama waaye wu yéeme muy fussi seen si xam nga loolu dafa na fussi waaw waaw. waaw jéewul jéewul bi sëñ bi la. bu baax la. xam nga Sayyidatuna Mariama dafa mën góor. dañ day ku kiimaane ku yàlla fonk. yàlla bi mu koy wax mu xewli ci ndox mi. ndax booba bi yàlla dogalee Seydina Isa feeñ. yàlla dana ko lekkal te naan te dal xel. xukuli wasrabi wa qarri aynan nag naan di la lekk te naan te sa xol na set ci gën a doy waar mooy bi sëñ bi kii yéemu ci diggante li mu doon chrétien ñu dajeeg aaya boobu matugul une seconde moom mu génn ta musutaan da nga moom léegi musu tànn bu président ba tànn booy neex yooyu génn ko nu nu ko lii maa la ko siyaare te moom sabal xamul li may wax si daa ciy tuwa yooyu yëpp yàlla da ciy wone tey nag kaay wax nañ alquran ci la sëñ Tuubaa doon listixaare lu muy def ay ay dugg fii di di xalwatoog di wéet ak nga xulli ay bët dee deet sëñ bi danaan ubbi aaya rek aaya bi lu ko wax bu def ko daaru salaam gii bi bi wàcc ca gabam maam ba maam Cheikh Anta ne na nga na nga ñu jariñoo la ndax ma sëñ bi ne koon damay dem yow dama lay yebal ci mbooloom boo demee nga nekk ak man damay jàll mu ne ko pour naa def de ci la ne ko sama liggéey bi sax dal ci mos mm.

mu ne ah man de mi ngi nii jigéen daal laa am te jigéen a góor bokkuñu waaye xanaa ma barkeeloo ci tuddee ko Mariam Mariam mooy kon koo xam ne day woon ginnaaw ñëpp tàbbi ci benn barab di fa jaamu yàlla di fa jaamu yàlla ba mel nu nit melut loolee feeñ ci moom lam feeñee ci moom mooy bu ma sànni xëlwatu ji dem fa muy jaamu yàlla du yóbbaale dara du yóbbu ndox du yóbbu lu ñu lekk waaye su nijaay ji ñëwee muy Sakariya day yow fekk coof fees dell ak ñam ak yi mu fii waa fii lii bu di nga lii maa dumtu xayya féeg maa ngi nekk di existe di du dund yàlla dama koy dama koy jàmm daal ne wa barram bi waalidati ñëw bi waalidaya na nga wax na ma topp sama waajur wu jigéen wii boolewu ci góor daal ne wala muy ñaan li jàppaaram saqi yàlla defum mooy ab addu kalpe addu kalpe yow boobu la Sidna Isa teg ni xam nga dañoo mën a tas yaakaar xam nga nit ku yor ab saagam ñu ne bu xëy ci mbooy gi rek nangu ko booba la wax ne na ngeen ko moytu man yàlla defuma may kooku man du ma kenn du ma jël xaalis kenn du ma nangu xaalis kenn di sarfi xasanaat xam wax naa léegi ne ñun sax bu ñu may ab séet danañ ko jàngal ngir bëgg bu de demee mën a rafetal boobu soxna si mën a ko caaroo yi lu mu néew néew bu ko defee ci biir këram see mën sayyidatan li muhsinaat maryamu fuxti muhsinaat inda nazira mudrik yow de yiw yi bu fekkoon dañ ko jël def ko ci ndab ba teg ko ñépp di ko njëkkante yow yaa ne ces ndab li téye dal ne ko jigéen ñi nga xam ne ñooy rafetal ba yàlla gërëm leen seen rafetal yaay doon seen kilifa yaay seen sang ndax yaa leen ko dàq ci yow lañ ko jàng ñi xam yàlla xamin wu kenn mus sa gis ay jigéen ñooñee yàlla féete kaw fa ay indal muminin kaw ni ki hibbal mussinin yaa umma xayri mussinin maasumatan min ki doo dégg dara ci réew mi lu yàqu ñu ñoo ko yàq doo dégg dara lu ñaaw lu wax nga ne nga ne ci lan bi ñoo ko wax seeni kaddu foo ko déggee mooy li indi jàmm la jàmm rek jàmm rek la ñuy waxtaan te itam loolu it ñun ñëpp la leer amul kenn ku ndax nit kat booy wax ci moom li ngay wax ci moom tam gën la koo xam loolu mooy cant gi waaye nit da wax ci moom ba noppi lum rafet rafet rafet day sëgg na pat waaye bu jógee ne waa ji day ku ko ku ko dàqan meew amul ci ko waaw loolu moom da koy waxal loo xam ne rek ah, dana ko dolliwaat sax mu ne ah, man ka xaw lii may def sax lañ ko gisee te noonu ñoom noonu lañ leen gisee daal ne daal ne ko ñi rafetal ñëpp yaay seen yaay seen ndey ndey dana xolam seetlu bu ñu ngi dem waaye mu ngi ci suñu xol. nee na ñu ngi defar dem waaye nag yéen yaa te duñ ko fàtte. nee duñ la fàtte mu. voilà duñ lay ñaanal toujours. nee na buñ toll lay ñaanal. yàlla gën la may doole. yàlla may gën la may wér gum yaram. gën la may wér gu yaram. liggéey bi ngay mottali fii di àggali nit ñi. di leen déglu di wax ak ñoom. liggéey bi ngay mottali fii di àggali nit ñi. ñu gën la déglu. voilà nga gën koo mën a def. nga gën koo mën a def. jërëjëf sëñ bi amiin amiin te boole ñu. ñu ne am sabab. nee na aaya ma wax ci tànnal ba gi soxna si gësam. nee na yàlla cee feeñalaale nit faaw muy sabab. moom nga yàlla mënoon naa jël tànn bi ko dagg di ko di ko yóbbu ci gémmiñ. nee na yàlla mënoon na jël tànn bi ko dagg di ko yóbbu ci gémmiñ. di ko jox muy xewul. di ko jox muy xewul. gisuñ dara loolu nee loolu ci aay boobu am njàngal bu rëy gi ci waaw faw muy sabab nit bëggee la soxna jërëjëf abe ñu ñaanal dañuy njëkk ñaan ñaanal waa kër bi yëpp ñaanal sëriñ bi ñaanal taalibe voilà ñaan ñun ñëpp ñu fa nekk ñu gën a nekk benn voilà euh, mu ñaan ñi voilà ni koy faral di ñaan voilà dañ koy bantuwaat suñu baay yi nasatu sell na sangoo dikk noo bëgg na am ci suuf naka ci asamaan may ñu tey suñu dund bés bu nekk te baal ñu suñuy tooñ naka ñu baale lu baax. merci beaucoup merci jërëjëf